bi ixsaanin ilaa yawmi diin mbokki taalibe yi ñëwaat ak yéen ci seen dénkaan ci waxi ku baax ki radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi wa ridwaani sëriñ bi wax nani ni yàlla day ba mu waxee jaam ñi ni leen laa ilaha illa allah amul benn buur bu yàlla ñoom ñépp dañoo amuk jaaxle ci yàlla jooju nan lañ koy jaamoo ak yàlla jooju tamit mooy lan mu daal leen ni muhammadur rasulullahi muhammad day mooy ndawul yàlla moomu maanaam daal mooy mooy ki leen di wan yoon wax ak nan ngeen di jaamoo yàlla kon daal dafa leen wax ni leen amul benn buur buur yàlla ñu jaaxle ci yàlla moom mooy kan ak nuñ koy jaamoo mu ni leen yonent bi mooy ndawul yàlla maanaam daal loolu mooy mooy ki leen di wan yoon wi ngeen di àgge ci yàlla ak naka ngeen di jaamoo borom bi subhaanahu wa ta'ala mu wax yonent bi ni ko yaa ayyuha rasulu balligh yow ndaw liñ yónni jottulil yonente bi daal di ay mbir lam jottuli nag mooy daal la war ca jaamu yàlla ya ak lañ sopp ca jaamu yàlla ya ak la dagan ci àddina lépp tam nekk lu yiw tey mën a moom li dagan yooyu daal mooy yoonu dem aljanna maanaam daal ku topp di def la war dañ ko bayyi lañ sopp it nga def la nga man la dagan tamit nga koy jëfandikoo ci lu baax neena koku dal na xamni ni ci yoonu aljanna waye nak la aram ak lañ sip ak la dagan ba pare nek luy bijji aw musiba neena lolu mom moy yoonu sawara kon daal day mel ni képp koo xam te nii ma ngay topp ci la war di ko def lañ sopp it mu koy def la dagante nekk lu yiw te yiwal mu koy def day mel ni moom na dalal xelam te xam ni mi ngi ci yoonu na kon daal képp koo gis rek muy jaamu yàlla di def li ko war muy julliya ak woor weeru koor wa ak natt azaka ak yi melni yoy yep te nek lu war wala bok sax warut way luñ sopp la lu melni ni la lu melni ni wala bok sax lu dagan rek la ci adina waaye dalay yobbu ci def lu bax lu melni ni sangu ngir oyof man jaamu yalla wala lek ngir man ca degeerlu ba man jaamu yalla kep ku dekk ci lolo dal na xamni ni moom ci yonu aljana suko ko rek aljana lay mujjo waye ki dëkk def lu araam nag moom ma ngay ñaka julli ma ngay ñaka wor ma ngay ndialo ma ngay def lu bon ma ngay jew ma ngay xaste te dëkk def luñ sip tamit ma ngay def lepp lo xam tane luñ teral luñ sip la ba pare it la dagan ci kaw suuf da koy def ngir moy yalla saa yu lekkee ba suur rek la muy xalaat mooy nelaw ba faat waxtu wa saa yu ba suur la xalaat mooy génn dem taxawaalu ji ngir moy suñu borom kooku moom na xam ni yoon wi mu bu ko wàccut ma nga jëm sawara walxiyaasu billah yàlla waxaat leen ni leen wama ma aatiikum rasulu fa xuzuuhu wa ma naheekum anhu fantahu lépp leen yonente bi indil na ngeen ko jël di ko jëfe lépp lu leen tere it na ngeen ko bàyyi moom ku tedd ki mu waxaat ni saa yoo xamee ni daal yàlla moomu mooy borom kàttan moom am kattan gu mat sëkk te moom moo la digal ba pare digla la tere la ba pare digla tamit moo la digal digla la mooy moo la digal ni boo ko jaamoo mu digla aljanna moo la tere dig la mooy moo la tere ni boo ko moyee mu dig la sawara loolu daal boo ko xasee xam ba pare mu wóor la ni yàlla mu ëpp ñëpp kàttan amatoo lay ndax la la war bu boobaa mooy nga fexee jafe ay ndigalam te bàyyi ay tereem ndax tamit soo xamee ni yàlla moomu moom mooy aji bëgg ji te bëgg mu am kon doo xëccoo moom ci dara neena yi sa yo xamanteni sa xol xalaat na lu baax gaawal gaaw nga dem defiko waye bul yeex sa xol sa yo yu ak lu bon rek neena na fa saase rek da nga daal tuup tuub xalaat gi nga ko xalaat sax ndax suñu borom xamna li nekk ci sa biir ndax mom fo nekk xamna ko te moy aji dundu ji nga xamanteni ñeek ñepp di dundu, mo ñeek dundu ba ñepp yi dundu it mo doon dundu bu ñepp jeexale ak dund it moom moo fi sax ba faaw ndax moom aji dund la joo xam te du faatu mukk te aji dégg la aji gis la moom it borom bi subhanahu wa taala kon daal mbokk yi takk bi mooy kuy jaamu yàlla daal na xam ni mi ngi ci yoonu aljanna kuy moy yàlla it na xam ni mi ngi ci yoonu sawara wal billahi tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp te xiir ñu ci jëfe ndigali cheikh ahmadul xadim متدمي رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته وفيض رضوانه والسلام عليكم ورحمة الله